الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi baaxoo ànd ak ñun fii si Safina TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di leen ñaanal yàlla mu dool leen tawfiq ak siir di ziyaara mboolem ñi nga xam ne rek ñi ngi ànd ak ñun jiital si kilifa diine yi ziyaar leen bu baax a baax rawatina suñu xalif général Serigne Babacar Sy Mouhamadou Mansour ñu nuyu ko ziyaar ko bu baax a baax jël nuyo bobu nga xamni mom lañuy jox mbolam kilifa diine yi mbolam njabootu mam Cheikh sayyid al Hadj malik teg ko ci loxo suñu bunt ci kër mam Cheikh sayyid al Hadj malik di Cheikh sayyid mohammed al mustafa sal Amin ñu jël ci wat ci seen émission Miftahoul huda ànd ak sama professeur sama soppe sama sang sama patron di al oustaz imam Pape Makhtar incha allah rabbi comme niñ ko daan defee moom la ñuy bàyyi rek oustaz nga nuyoo ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun ci seen émission Miftahoul Houda oustaz asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. oustaz Mouhamadine Mansour maa ngi lay nuyu di la ziar. di jël sama nuyoo rek di ko teg ci sa kaw nuyoo nuyu waa Sénégal yëpp. nuyu àdduna bi yëpp waaye nuyu umma islamique yëpp xaj Mansour. jërëjëf fajarti imam oustaz ñu ngi seen émission Miftahoul Houda comme ni ñu ko daan baaxoo def. Mhm. suñu ñëwee li ñuy njëkk a def mooy jàngat actualité. bi nga xam ne rawatina bi nga xam ne moo ñoom moo moom la ñu romb ci semaine bi ñu génn. nga xam ne ku nekk gis na réew mi ak ni actualité bi demee ñaxtu yi manifestation yi waaye li ci gën a marqué mooy nit ñi ci ñàkk seen bakkan mm-hmm. nit ñi ci yàq seen i alal oustaz tey soo doon jàngat loolu en tant que kilifa diine en tant que oustaz en tant que éducateur lan ngay wax jërëjëf Hadj Mansour xam naa balaa may ñëw ci njàngat mi ñu mm-hmm. jaale mm-hmm. bakkan yi ci rod yépp ñaanal leen yàlla yàlla nu mottalee seen ndaw ca aljana amiin yaa rabbal ndax boo seetee Mansour mhm. fan yii ñi ñàkk seen bakkan yëpp ci xew-xew yooyu ay xale lañ mhm. xale waroon dugg ci àdduna wala doom soogaam di dugg ci àdduna dem ñu ñàkk fa seen bakkan donte foofu la yàlla tudde woon ni seen bakkan fa lay des ah. wante ak loolu yëpp ñu nangu dogalu yàlla bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yóbbu leen aljanna amiin ya rabbal alamin ci barki yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> waaye tamit ñu ngi ñaan yàlla mu may seen wayjur yi xolu muñ <laughs> fa ñu féete woon seen wayjur yi yàlla na leen fa yàlla féete wala fa ñu amoon yéene yi <laughs> wala fa seen wayjur yi yaakaaroon njaboot yi suñu màggee daañ leen fa féete doon ko ñaan yàlla yàlla leen fa yàlla féeti amiin yaa rabbal aalamiin waaye di massawu tamit ñi ci am ay gaañu gaañu mhm. ñun ñu ngi leen di massawu bu baax di massawu yitam ñi nga xam ne am nañ ci ay yàqu-yàqu ay bien seen alal yàqu na ci ñoom yëpp ñu ngi leen di massawu di ñaan yàlla ñi ci gaañu yàlla nañu wér ba delluwaat ci seen i liggéey ak seen sago ñi ci yàqule yi tamit ñu ngi ñaan yàlla la ñu yàqule woon yàlla na yàlla delloosi ci seen loxo lu ko ëpp ci barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam Hadj Mansour. oustaz yaa ko wax léegi ñi si ñàkk seen bakkan. ñi si gaañu xëy na sax mën wax ni moom manifestation ñoo ànd mais oustaz yàq gi ci ndaw la nga xam ne yaa war a yor réew yaay yaakaar yaay avenir u réew yaa war a yor penc ëllëg ak yàq gu métti gi nga xam ne daf na gis nañ ko est-ce que jaadu na ci ndaw loo nga xam ne yaa war yor ëllëgu réew mi yaay avenir u ëllëgu réew Mansour Mansour yàq jaaduwul fenn. yàq kenn du ko cautionné maanaam kenn du ànd ci yàq kenn du ànd ci yàq yàlla ci boppam moo njëkk a bañ yàq moo wax ci alquran wala tufsidu fil ardi baada islaiha bu leen yàq ci kaw suuf gannaaw bi lépp yéwéne xam nga tey Mansour yow mi am li leen naqari am nga droit génn jàmbat ko wax li la naqari. Mhm. maanaam manifesté wu. Mhm. loolu kenn du ko aaye. Mhm. te ñi jàng tamit ci suñu réew neen dafa bokk ci suñu chartu réew. soo amee lu la naqari nga génn wax ni danga am lu la naqari. waaye génn bi nag warul ànd ak yàq. warul ànd ak yàq. déedéet warul ànd ak sànni warul ànd ak sax wax bu tegginuwul yow génnal wax li la naqari yépp wala nga wane ni am nga lu la naqari bind ko ci këyit dem jébbal ko ki ngeen kilifa gi ngeen ko war a jébbal muy dox di dox ba àgg ci kilifa gi ngeen bëgg mu àgg fa ngeen dem delluwaat toog waaye bu kenn yàq xoolal Mansour boo xoolee benn semaine bii rek wala fukki fan yi ay milliards ñoo yàqu ci réew mu néew doole mu mel ni Sénégal mm-hmm. ah? loolu da ngay delo sa bop yow mi ko yak da ngay delo sa bop gannaaw muy ben yow da ngay delo sa bop gannaaw te bo delo sa bop gannaaw moy delo nga ci rew gannaaw delo nga ci economie rew gannaaw te tamit di nga tax bu doon ay doomi yeneen rew ñoo indi won seen alal ci rew mi samp ko fi di fi liggey di ci am teranga ngeen ci am teranga ñom tamit dañuy ragal parce que nañ ni sa yu mere yak mm. kon mer yak du solution يونتي بي دافو ليس الشديد بالصراعات انما الشديد من يملك نفسه عند القدب ولين الجانب يونتي بي نين كي خامني بو ميري ديف ناندو كوكو بو جامبار يونتي بي نين كي جامبار موي كي مير ام ميتريز با ريغلي لي مو بغي ريغلي تي ميتريزم تا دو ياق دو واخ واخ بو تيغن ول حاج ناصر استاذ اسكو كون بينو بينو جانغاتي ياق جي ولا مانيفستاسيون غو ميتري با دوغ با يوبو تي نيت كي ياق Euh, kilifa gu saañ ay noppam gëmm ay bëtam ci xëy na jafe-jafe wala coono gi nga xam ndaw mi ngi koy jànkonteel si jamono ji. waaw xam nga Mansour réew mi dafa toll foo xam ni képp koo xam ni danga fi yor ay responsabilité daf la war nga génn wax ak askan wi rawatina ki nga xam ni mooy yor responsabilité bu mag bi yépp muy président Macky Sall. xam nga wax naa ne yàqu-yàqu yi nga gis du affaire Sonko bi de affaire Sonko Adji Sarr mhm. indiwul yàqu-yàqu bi bu dee fukk benn la ci wala benn ba sax da koy xaajaat Mansour mhm. dafa fekkoon askan wi am na lu ñu guux lu ñu téye lu yàgg ci seen dënn yi mu metti leen xale yi amuñu xëy nañ waxante dëgg mhm. muy benn dund bi demeetul noonu feebar bi ñëw na. Mhm. yàllaa ko indi. Mhm. waaye bi mu ñëwee tamit ñu jël nit ñi tëj leen tëj. kenn ku nekk la nga mënoon am amatoo ko wala amatoo dara. Mhm. ngay xëy di xool sa njaboot sa njaboot di la xool bi lii amee nag nit ñi occasionné wu di surtout xale yi génn deful yàq yi nu yàq wane mais du affaire u Sonko Adji Sarr man jàpp ma lool. déedéet parce que jarul lii ah. jarul waaye déedéet waaye nit ñi kenn ku nekk da nga génnee sa problème mu bopp. kenn ku nekk sa problème mu bopp. nga exposé ci problème bi dugal ko ci problème bi. <laughs> dafa am ay jigéen yu mas a dem xew nga baal ma entre parenthèse Mansour bi ñu demee lekk añ fa bi ñu añee ñu tegal leen njogonal ñu lekk njogonal yi ay njogonal yu niin bët bari diwlin mooy mbaxal yooyu. Mhm. bi ñu lekkee. yàlla dogal bi ngénte li tase ñu duggaat seen oto war a ñibbi seen dëkk bi nu war a ñibbi seen dëkk benn jaboote ngi ci biir uuf doomam jekk ba yàgg doom ji tàpp tàppal yaay ji ñu ko yaay damaa soxla sama bopp mu bëggoon dem wanag ndax li mu lekk moo yëngal biir bi ndekete xale bi li mu lekk bu mu yëngal biir bi mbooleem ñu ci oto bi yëpp ñoom tamit seen biir yëngatu la mais rus nañu wax chauffeur bi na leen may yaayu xale bi ni mu uufe xale bi daal ni chauffeur baal ma nga droité may sama doom ji parce que dafa bëgg a dem wanag mhm. dégg nga mhm. loolu rek la wax chauffeur baa ngi xool fu mu droité waa oto bi yëpp daal di jógandoo ñu ko waaye chauffeur may ko waay may ko waay mu taxawalal oto bi xale bi dafa bëgg a wàcc mais bi chauffeur bi droité ñi nekkoon ci oto bi kenn ku nekk wàcc wul roq boo dugg pour suturaal sa bopp mhm. loolu mooy problème bii xew Sénégal. Mm. dafa fekk kenn ku nekk am loo guuxoon. li nga guuxoon nag moom nga yàbbi. waaye ni ko yàbbee dafa am lu ci baax am loo xam ne baaxu ci. dafa am lu ci baax. baax am lu ci baax parce que nit soo amee naqar war nga feeñal sa naqar waaye boo koy feeñal bul yàq bul saaga bul xaste bul lakk bul def dara nga xale yi def taal ay pono taal ay osan taal ay total loolu baaxul. waaye mën nañ nag jàkkaarloo président Macky Sall xamal ko ni ko kat yow yaa nu jiite waaye réew mi fi mu toll nii dëgg dëgg dëgg metti na metti na su ko defee moom it mi jaboote mu delluwaat gannaaw xool yi mu war a defaraat mu defaraat ko xool yi mu war a tàllal loxo mu tàllal fa loxo nit ñi xool yi mu yàqule mu defaraat ko parce que nag du lépp moo yàqu ah bare cinq ans yu njëkk yi zéro faute mandat bu njëkk bi zéro faute lépp a baax wala li ci ëpp daa baaxoon waaye deuxième mandat woon bii nag dëgg-dëgg réew mi ñun sonn nañ ñëpp a sonn. <laughs> ñëpp a sonn man Macky Sall laa faral te wax naa la 2024 lay teqali ko moom fii ba 2024 maa ngi moom ay ànd. incha allah incha allah si yàlla waaye nag fi mu toll nii réew mi metti na ñu defaraat toogaayam xoolaat réew mi fexe ba dimbali ndaw ñi ñu liggéey dund bi yomb mu fexe daal ba nit ñi seen xol yi. dalaat apaisement bi ñuy wax yëpp jàmm ji ñuy wax yëpp jàmm ji li koy indi mooy na dund yomb na xale yi liggéey nañ teg wàllu atte bi ci yoon lépp alalu réew mi tamit nañ ko teg ci yoon loolu bu ñu defee rek apaisement xaw ma jàmm day daal di am waaye bu loolu amul ah dana naqari ah pour jàmm ama ah, dëgg-dëgg dina naqari pour jàmm am ñu des ñu gis engagement ak responsabilité bu mat bi nga xam ne kilifa yi diine yi def nañ ko. génnaat wax ak àdduna. génnaat wax ak euh, gouvernement bi waaye génnaat wax ak askan wi ba jàmm dellu siwaat fañ ko bëggee woon yaakaar naa nit ñi doon wax nañ na kilifa diine yi wax gis nañ kàddu kilifa diine yi am na njariñ nag. lool ba paase ko. ndax bu dul woon ak ñoom foog naa te yaakaar naa ne yamuñu ci wax rek. yamuñu ci wax rek. déedéet rek wax wax nañu. ñaan nañu man gëm naa ni lii seen ñaan dugg na ci seen kàddu yitam dugg na ci wax dëgg yàlla te foofu itam lañ leen doon xaar parce que ñoom ñoomu yilif ñoom la ñu yaakaar suñu diggante ak suñu borom ñoom la yaakaar ci wàllu àdduna ci xat-xat yi ak jafe-jafe yi kon lii rek ñu def mooy seen taxawaay ñoom ñëpp waaye tamit dama bëggoon tamit njiitu réew muy bàyyi xel kilifa diine yi mu leen di bàyyi xel bàyyi leen xel jox leen nopp kilifa diini yi nga xam ni tey bu réew mi dee tàkk ñoom ñu jóg mu bàyyi leen xel beneen bi ci des tamit maa ngi ñaar ñi ñuy tuddee ay kilifa ci wàllu diine te nu jege président ñuy wax ak moom ñuy wax ak moom waxtaan ak moom ci yenn xew-xew yi gis nga lii xewoon ci réew mi du woon ñàkk xew du woon ñàkk xew déedéet faaw xew fii ñu ngi toroxal sëriñ daara yi jàngale alxuraan Mansour. di bundu xataal taalibe yi di leen jàpp. di dóor sëriñ daara yi. ku mu neex teg ci yonent bi lu la neex comme Moustapha Jaxate wax yu ñàkk teggin. lu am tey bu ëllëgee lu ko gën garaaw dana am. nga ni lan oustaz lu am tey bu ëllëgee lu ko gën garaaw dana am man maa la ko wax man Pape Makhtar Sylla gis nga semaine bee passé yaa ngi gis sëriñ daara yi dajaloo jàng ay alamtara jàng ay tabat yi daa ja keneen ku nekk jàng ay dog yaa qaharu yaa jabaaru def ay dog yépp ñu sànn ko ci kaw état mais loolu tamit état mënu ko dékku sëriñ daara yi nañ leen bàyyi xel parce que ñoo yor kàddu yàlla ci kaw suuf taalibe yee tax yàlla rus ñu ci yenn bàkkaar yi nañ leen bàyyi xel bàyyi xel daara yi koo xam ne day jàngale alxuraan fayoo ko wutaloo ko fu muy jàngale joxoo ko dund dimbale ko ci daaraam waay waay kii bàyyil ay taalibeem ñu dem yalwaan may ko jàmm moo gën waaye dimbale woo ko ba pare bëkk bundu xataal ramassé taalibe dugal fii tëj loolu du indi jàmm oustaz yow yaa yow yaa yow yaa ci duggoon actualité nag wax dëgg yàlla seen émission Miftahul Huda ci Safina ah. TV. saa su nekk euh, concept bi mooy mu ramasser mboolem lu am luy actualité ñu càmbarandoo ko ci wàllu ci wàllu diine taxawaay bi nga xam ni moom la oustaz yi am sëriñ si am nga xam ni def nañ jàng nañ alquran ñaan ñaan lépp ngax lan teraanga gi ñu am mooy alquranil karim ñu bëgg ko ñu bëgg leen koo xañ ndaw ñi nga xam ñoo opté pour jàng alquran jàng seen diine ñun leen duñ leen jox ci condition yi ñu ko war a am est-ce que ak état kon euh, équilibre dina am. tolloowul ni mu maanaam ndey ju ndey ju seex njaaxaanaay la war a tëddee gis nga état li muy def ci école français yi bu doon def lu ko gën a tuuti ci daara yi réew mi réew mi. Mhm. yëngu-yëngu yëpp du am yëngu-yëngu yëpp du am man naa la ko wax. fu ñuy terale alquran ñooñu yàlla def leen di teddal waaye fu ñuy teddale di alquran ñooñu yàlla du leen tere kon état li ko war mooy mu jàppale sëriñ daara yi jàppale daara yi taxaw ci ñoom mairie bu nekk wala gox bu nekk ñu recensé leen xam daara ya fa nekk dimbali ñëpp suñ mënul dimbali ñëpp it ñu bàyyi leen daal ci seen sago suñ leen mën di dimbali nañ leen bàyyi ak seen sago seen sago ak seen i taalibe ñu ànd ak seen i taalibe jàngale seen alxuraan taalibe yi yalwaan dem dunde duma leen dimbale te doo yalwaan mënul nekk fii ngay toog ci biir doo génn te duma la jox loo lekk mënul nekk mënul nekk Mansour mais est-ce que xel sax dina nangu yow soo soxlaa dara sa réew amu ko nga génn bitim réew uti ko sa taalibe bi li mu soxla ci daaraam amu ko nga ne ko doo génn uti ko. déggoo li a la wax pot bu gudd bu gàtt la <laughs> ñoom dañoo yor pot bu gudd rek ñu ñu yor pot bu gàtt ñu sëriñ daara yi mais yalwaan yalwaan rek ñëpp a yalwaan ñoom dañuy yalwaan ñun dañuy yalwaan te suñu yalwaan sax yaakaar naa moo gën a set gën a sell seen yalwaan. ndax amul condition. déedéet. amul benn condition. da ngay saraxe rek ngir yàlla. taalibe bi dem lekk wala mu indil sëriñam mu dunde man toog man jàngale kon nañ bàyyi daara yi bàyyi si ñëpp ñu jàngale alquran réew mi tamit xale yi nga xam ni ñoo yàq nañ bàyyi yàq yàq baaxul nañu àndandoo ñu ñëpp bëgg jàmm woote jàmm kilifa réew mi tamit mu taxaw ci askan bi ko yàlla dénk fexe ba yii bañ a amati oustaz bi ñuy jeexalee nga xam ne mooy mooy euh, résumé actualité wu euh, tey bi mm-hmm. ci seen émission Miftahoul Houda oustaz ginnaaw bi yàq amee Euh, ñu yàq magasin wu jàmbur bi jël fa te gis soo xoolee si réseaux sociaux yi xoolee si vidéo yi dangay gis ni nit ñi dañoo profito ci yàq boobu roñ loolu lu jom si ay bagages yu jàmbur lan moo lan moo war a nekk rek taxawaay bi roñ nañ ba pare actuellement nii seen diggante ak seen borom. Mm-hmm. ñi nga xam ni ñoom ñoom ñoo demoon roñ ki jël meew ki jël suukar ki jël nangam est-ce que responsabilité wu état la digganteem ak boromam wala ñoom ñi nga xam ni ñoo jël seen responsabilité bopp la. yoonu état nekku ci digganteeg yàlla déedéet ki sàcc kay sàcc la ki sàcc état benn responsabilité rek la ci am mooy na fexe ba ku sàcc na la jàpp su la mënee jàpp teg la daan ba bu ëllëgee doo sàcc. ba bu ëllëgee lu mel nii bu amatee sa xel du nekk ci dem. sàcc oustaz nag yow ñi yow ñi ñu ngi si contexte boo xam ne dañuy wax ne nañ apaiser nañ na na na jàmm am. loolu mooy na nañ jàpp nag yow. oustaz loolu mooy loolu mooy indi jàmm di Mansour. déedéet bu fekkee waaj bu sàccee. no oustaz bu fekkee Mansour. oustaz xaaral oustaz kilifa diine yi ñaan nañu. ñëpp discours yëpp gis nga ko discours yëpp dafa ñëw dalal réew mi. bu léegi nag soo waxaatee jàppaat am. indiwaatoo jàmm Oustaz. jàmm boo koy wuti fi nga koy wutee mooy yàlla dafa ne woon ci alquran su ngeen bëggee am jàmm ku rey na ngeen ko rey. ku bëtt bët na ngeen bëtt bëtam. ku dagg nopp na ngeen dagg noppam ku jam nit natt leen lam ko jam fa mu toll ngeen jam ko ko foofu. Mhm. loolu ci ngeen di amee jàmm ndax kenn dootul rey kenn dootul jam kenn dootul dagg nopp jàmbur. Mhm. sàcc tamit su amee ci contexte bu mel nii. Mhm. mu wóor na ni xam nga mars moom du fi jóg. déedéet toujours gars yi dañuy mars. incha allah comme toujours gars yaa ngi mars nag da ngay fexe ba teg loo xam ne ñi marsoon sàcc alalu jàmbur day tax ëllëg su keneen marsé xelam du nekk ci sàcc alalu jàmbur ndax lañ ko teg. Mhm. kon ñi sàcc ñëpp war na état bu fexe ba xam leen jàpp leen teg leen loxo teg ci ñoom ay sanctions yu métti bu bu ëllëgee du ñu toj au du ñu toj total du ñu toj feneen loolay indi jàmm beneen bi ci des seen diggante ak seen borom nag ku sàcc sàcc nga ñaari bàkkaar bàkkaar la ak àq àq bi sa digganteeg ka nga sàcc alalam bàkkaar bi su digganteeg sa borom ba sa borom moo la tere woon sàcc sàcc nga am nga bàkkaar mhm. sa borom moo la tere woon bu lekk xàqu jàmbur mhm. jël nga xàqu jàmbur am nga bàkkaar mhm. soo bëggee yàlla baal la jéggalul yàlla sàcc gi ni dootoo sàcc la nga sàccoon itam nga dem delloo ko fa ko sàcce woon lii daal mooy. kon ñaar la ñaar la. benn mooy tuub si diggante ak sa borom. sa borom te mooy bàyyi sàcc. benn mooy oustaz oustaz amatul nag yow na nga pare nag. dama ni oustaz dina amaat. incha allah dañ ko defaraat. parce que mënu fi ñàkk dimbal la ci réew mi dañ ko defaraat chargé waat ko bu mu mel ni meloon incha allah si kattan. léegi ki sàccoon na mu dem ci oustaz ba delloo la mu sàccoon. bul xaar ni boo demee ñu jàppale de même suñu lay jàppee nga xam ne loolu yëpp rek ci tuub gi la bokk nga dem ni fii maa fi sàccoon saaku ceeb. tuub dafa am nag nga dem ñu jàppale. waaw waaw. oustaz tuub dafa ànd nga dem ñu jàppale parce que yaa sàccoon il nga delloo li nga sàcc su ko defee man loolu rek laa ci wax xaj ma. ñu bàyyi la nga jox sa message bu mujj ndaw ñi nga xam ne wala àdduna bi nga xam ne mi ngi ñuy déglu ci rawatina ci context yu mel nii. mooy li may wax daal maa ngi koy jiite maa ngi koy tàmbalee ci njiitu réew mi muy président Macky njiit njiit la lu mat njiit. Mm-hmm. mat na ko. kilifa gu mat kilifa la nu xoolaat réew mi xoolaat doxalin yi xoolaat jëfin yi. Mm-hmm. man loolu laay wax sama président muy président Macky Sall. Mm-hmm. ba fii ma toog nii mooy sama président. waaw Oustaz loolu moom loolu moom. du wax non mooy président wu Sénégal gépp nag ah, yow man. moom laa gëm te mooy président wu Sénégal yëpp d' accord naa ak yow ci loolu. mooy président Sénégal yëpp nag te itam. li mu fi def bari na lu baax ah. bari na lu baax yu mu fi def. am na nag ay éeréer erreur yi nañ ko defar réew mi delluwaat fa mu de nekkoon kenn ku nekk dem toog nekk ca la nga nekkoon ñu xaar élection yi ñëw su ñëwee ñu voté ku gañe ñu jël réew mi teg ci sa loxo àndandoo nekk ci sa gannaaw jàppale la. man loolu laay wax ndaw ñi dem leen xëy kenn ku nekk bul xeeb dara lu yàlla teg ci sa loxo liggéey ci état tamit jàppale ñu. jàppale ndaw ji jàppale sëriñ daara yi jàppale réew mi répp réew mi looloo koy dalal waaye réew su fekkee dafa am alal joo xam ni day am kumba am ndey ak kumba amul ndey ñii di dund dund bu neex ak seeni doom ak seeni soxla ak seeni bokk ñii bëgg dund dund wereyaan bisu mel ni du fa ñàkk lii rek laa doon wax asalaamaaleykum jërëjëf fajal ci imaam oustaz Pape Makhtar Sylla jërëjëf euh, ñeen ñi nga xam ne yéen a àndoon ak ñun ci seen émission Miftal Huda saa su nekk nii lay demee rek ñëw ramasser actualité yi nga xam ni moo am ci semaine bi ñu waxtaane ko oustaz yi yenn saa yi ñu jël beneen ponk waxtaane ko tey lii lañ jëloon muy actualité ñu waxtaane ko ak yéen waaye ñu ñaanal yàlla ñëpp yàlla dal leen tawfeex ñu jiit ñi nga xam ni ñoo ñoo ñoo génn àdduna ci manifestation yi yàlla jéggal len ñi nga xamni ñoo ci am ay gañu gañu yàlla yàlla defal len safara ñu delu wat sen sago yàlla na rew mi neex yàlla na aduna bëpp neex mbas mi yàlla ñu dëddu ak jàmm ci barki yonent bi ñu jox leen rendez-vous rek ci benen numéro inshallah fi ci Safina TV.